الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله بقي ñi ngi sant suñu boroom suñu boroom boobu nga xam ni moo ñu baaxee wërsëgal ñu la nga xam ne mooy alal alal jooje mu sant ñu ñu dépensé ko ci loo xam ne dana tax suñu àdduna ji yéwén waaye suñu diina ji it doon diina joo xam ne yu yéwén la mu dikk ni li ma leen jox fii yéen a ngi ciy joxe danaa doon ku koy wuutal waaye teewul danaa leen dencal yool bu màgg bu ngeen a fekki si àllaaxira ñi ngi seede ne kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom di seede ne muhammad ab jaamam la woon ba mu yónni ci ñun ñi ngi ñaan mu julli ci moom julli ci ay saxaabaam ak ñi koy roy ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu mbokk julit xam leen ne day lii nga xam ne moom la ñuy tuddee asaka daa bokk ci juróomi ponk yi nga xam ne moo téye diine lislaam islaam juróomi ponk la seede bi ngay seede laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñaareel ba mooy julli yi ngay julli waaye ñetteel ba mooy zakkaat bi ngay joxe ca la koor doog a ñëw aj màkk doog a ñëw suñu borom yàlla subhanahu wa taala farataal ko jagleel ko muy laabal alal di laabal borom alal di jokkale ñi am ak ña nga xam ne nii dañoo néew doole suñu borom mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëlal ci seen alal yi loo xam ne da nga leen ci laabale waaye da nga leen ci fule développé leen ci ca it gannaaw ba nga ñaanal leen ñaan yi nga leen di ñaanal loolee dana doon lu leen di dalal mu doon kon ñaari mbir njëkk guy jóge ci ñiy joxe ak ñaan yuy jóge ci ña ñuy jox lii mbokk da ngay gis ca la suñu borom yàlla màggale mbiru azaka boobe mu jël li nga xam ne muy julli ak màggaayam jël ko muy azakay jëmm doomu aadama yi am ay waxtu yoo xam ne mboolem programme war na ko bàyyi jël temps ak kattanam jagleel ko julli googe waaye mu jëlit zakat jagleel ko moom it muy la nga xam ne mooy war ci alal ja suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne taxawal leen julli te joxe azaka abdullah ibnu abbas daana wax ne ñett yi de yàlla du ci nangu benn lu dul ni ñaar yépp daa ànd ñaar yi jëkk ya mooy lan mooy suñu borom yàlla def ne topp leen yàlla ca topp yonent yàlla képp koo xam ne daa jàpp ne diineem mi ngi koy xool ci la yàlla digle ca alxuraan mu yem ca ku mel noonu yàlla du ko nangul gannaaw ba suñu borom ne sant leen ma sant seeni wayjur koo xam ne jàpp nga ne diine mooy fexe ba say julli say aj màkka say koor lépp mat te say waajur faale woo leen xamal ne loolee nga indi ci diine yàlla du la ko nangul gannaaw ba suñu borom mu ne taxawal leen julli te joxe azaka say julli lu mu mat mat lu mu sell sell te nga war a génne azaka génne woo ko julli googee yàlla subhanahu wa taala du la ko nangul mbokk suñu borom màggal zakat moo tax mu boole ko ak julli ci juróom ñetti fukki place ak ñaar ci téeréem bu tedd bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala loolee ba mu koy def day wane ne importance bi nga xam ne moom la am doonte ni li ci metti mooy tey mën ngaa wax ne quatre-vingt-dix pour cent ci jullit ñi dañuy julli xam nañ luy julli waaye it la ëpp ci jullit ñi tey xamuñu lan mooy zakat bu ñu déggee tur bi it xamuñu nu muy génne xamuñu fu ñu koy war a yóbbu waaye mbokk da ngay gis abubakarin saddiq radiallahu anhu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatoo dafa am lenn ci ay giri arab ñu ne ñun day daanañ jël suñu azaka di ko jox yonent yàlla bi yonent yàlla bi faatu na jeex na abu bakar ni day dem xeex ak ñoom omar ibnul xataab ak lenn ci sahaaba yi na ko waaw yow mi xalifa yonent bi nan ngay xeexeeg ñoo xam ne dañuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah abu bakar na leen wallahi képp koo xam ne daa bëgg a teqale diggante julli ak zakat naan dañuy julli waaye duñ joxe zakat ku mel noonu danaa xeex ak moom buñ ma xañoon benn ca bëy bi gën a tuuti ci seen zakat danaa xeex ak ñoom ba jël bëy boobee loolee mbokk lu waral loolu mooy suñu borom moo ne ñu yéeféer yi day buñ nangoo tuub nangoo julli nangoo joxe azaka seeni doomi ndey lañu ci diine fa in taabu wa aqamu salawaatu zaka fa ixwanukum fi diin kon képp koo xam ne nee nga du julli yaa boole sa bopp ci julit ñi waaye lislaam moom boolewu la ci képp koo xam ne am na alal te jàpp ne moom du génn zakat yaa boole ci sa bopp ci diine waaye lislaam moom booleegu la ci bala la ca lislaam ma boole nga jébbalul yàlla di nangoo julli di nangoo joxe azaka suñu borom yàlla subhanahu wa taala def na zakat muy mandargay nit ñi nar a texe alaxira borom bi mu ne texe na ñi nga xam ne dañoo gëm ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañuy toroxlu seen julli du mooyu lépp loo xam ne ay caaxaan lañu waaye mooy ñi nga xam ne dañuy génne ay zakat loole la borom bi lim ne ñii ñooy ñii nar a donn àjjana ja gën a kawi loolu muy firdaws loolu it mbokk mu lay won lii ñuy wax ci wàllu zakat yépp góor ak jigéen ñépp ci bokk yem ku nekk war ngaa xool ba xam ndax man bokk naa ci ñi ko war a def wala bokk ma ci ñi ko war a def suñu borom yàlla tëkku na tëkku yu metti daa di menacé ci menace yu rëy ci ñi nga xam ne dañoo am alal ci duñ ko génne zakat suñu borom nee na yowmal qiyaama zakat bi nga waroon a génne dañu koy def ay xeer tey bu doon adduna lu ne am na valeur man ngaa gis ne tey jii soo amoon dix mille francs am nga loo ci mën a jënd na doon ci weñ la wala lu mu la doon suñu borom nag moo xam naka lay def loolee nga waroon a génn ci zakat mu def ko ay xeer malaaka yi di ko jël di ko tàngal ci biir sawara ba mu xonq cur bu ko defee ñu tëral la di ñaas sa jëbi di ñaas sa wet bi di ñaas sa gannaaw yi naan la lii day mooy alal ji nga dencoon waroon caa génne zakat ci génne wucce zakat loolu mbokk mooy kënës doomu aadama loo mën a am ci alal na doon ay milliards waaye tànk yaa ngi fexe ba ak mu nekk nga xool lan mooy aqi faqiri nga génne ko loolu du denc bu islam ŋàññe ci waaye soo dencoon tey ci benn million ca loolee xalaatoo génne ci zakat loolu mooy kënz bi borom bi subhanahu wa taala di wax ne lii moo leen di xaar yowm alqiyama su ko defee mbokk zakat dafa am wàllu yu bëree bëri ay téere lañ ci mën a wax képp koo xam ne yàlla may na la alal war ngaa jokkoog borom xam-xam da ko man ka dama am ab tool nu ma koy génne zakat dama am jur nu ma koy génne zakat dama am magasin nu ma koy génne zakat doonte ne am na loo xam ne ñëpp a ko bokk muy li ñuy tudd or ak xaalis wala liy taxaw place or ak xaalis li taxaw place or ak xaalis léegi mooy billet de banque yi nga xam ne dañ koo yor tudde ko CFA wala dollar wala euro wala lu mën a doon ci monnaie adduna bi képp koo xam ne denc nga ca lu mën a jënd nisaab ci wàllu or wala wàllu xaalis dafay war nga génn ca zakat mbokk nisaabu or dana xaw a cher ndax il faut quatre vingt cinq grammes d'or ca ngay doog a am nisaab pour génn zakat loolu boo ko xoolee day jege un million et demi jëm kaw amma bu dee nisaabu xaalis loolee moo gën a suufee ca loolee la ca borom xam-xam yi di wax lan ca mujj dégg mi ngi tourné ci ay trois cent vingt cinq mille francs mu lay woon yow góor nga wala nga nekk jigéen yàlla dénk na la nga dencoon trois cent vingt cinq mille mi ngi noonu muy la nga xam ne mooy juróom benn fukki junni ak juróom denc nga ko ren ba déwén ngal la way xamal ne su booba zakat da cee war zakat nuñ koy xoole lu yomb la lool xoolal xale bi gën a ndaw nga jox ko machine à calculer tey jii na ko man kat damaa yoroon tey jii quatre cent mille day jël rek diviser par quarante bu ko defee mu nekk dix mille alal ji lu mu bëri bëri dañ koy séddale ci quarante lam la jox loolay zakat ba jeex na quatre cent mille dix mille la quatre millions un cent mille la ila axiri million bu ne vingt cinq mille loolee mbokk la ñuy génne la nga xam ne mooy zakat su ko defee su yàlla dogaloon itamit nga am ay bor bor yooyee bokk na lu ca borom xam-xam yi di wax su dee loo xam ne da nga koo war a fay léegi loolee moom doo ko boole ci li ngay génne bu dee dañ laa yoral ay borit bu dee ña la yoral mën ngaa dem léegi ñu fay la moog li nekk sa poos ñoo yem bu dee ne nag ñooñu da ngeen jëyunante woon délai boo xam ne passé na at wala boo demoon ay faqir lañu loolu da ngay xaar ba jot ko doo koo génne zakat mbokk lépp loo xam ne yaa koy jël di ko jaayi su matee nisaab da nga caa war a génne zakat magasin la boutique la loolee ay ginaar la loolee lu mu mën a doon bu dee yow da nga koy jënd di jaay waxuma nag loo yar bu dee da ngay jënd di jaay loolee ngay jënd di jaay muy wëlbatiku diggante marchandise ak xaalis at mu nekk da ngaa war a xool valeur am nga génne loolu zakat donte ne suñu borom yàlla ci yërmandeem lépp loo xam ne doomu aadama bi moom na ko te jubluwu ci ay jaay loolee da ngay gis ne valeur ba lu mu cher cher zakat waru ca muy kër yaa oto yaa ah yi ngay jël di ko luyee taxi ya lay dawal ak yooyu yépp mbokk zakat waru ca mbokk da ngay gis ne tey jii yow mi yàlla nattoo lu bëri ci nit ñi tey ay salaire la ñuy am salaire yooyu zakat du ci war lu dul nga denc ko ci at mi masalan waa ji nga xam ne da doon fayee ko même cinq cent mille par mois waaye moom balaa at mi balaa weer bee jeex cinq cent mille yi jeex ko zakat waru ko amaa nag bu dee denc nga zakat ba war koo génne léegi léegi nag weer yi di tegaloo ci yow nooy def jëlal benn weer ci at mi nga def ko weeru génne zakat su ko defee salaire bi fi am un mois deux mois trois mois loolu lépp lootu la lora ci at mi daal bu ñuy rek nga génne zakat loolu yow daal di ngay génne ci loolee mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala bim ñu tëralee zakat bi dafa ubbi ay bunt ne nañ ko jox ñii ña ca gën a yey mooy faqir ya faqir mooy ki nga xam ne nekk na ci société bi ca lii nga xam ne mooy digg doomu ci dund mu war a am loo xam ne dana koy dunde loo xam ne dana koy fajoo loo xam ne dana koy mën a faje aaja ya nga xam ne yu normal la moom kat yàlla wërsëgaloo ko loxoom jot gannaawam ñu dimbali ko ngir mu yegg ca loolee loolee mën na nekk retraité ya mën na nekk jeune chômeur ya mën na nekk jigéen ñi seen jëkkër faatu mën na nekk képp koo xam ne jàpp nañ ne ci société bi lay digg doomu dundkat moom imma liggéeyul wala ab liggéeyam mayu ko ko ku mel noonee wares na ko mën a jox zakat ca la ñuy dem ci miskin yi yalwaan na doon ña koy dajale ñooñu ñu war leen ca jox seen salaire na ca jaam bi nga xam ne it am na lu mu dunde d'accord mais mi ngi bor boo xam ne xamul fu mu koy fayee ku mel ni it waras na ko mën a jox ci zakat waa ji jógoon bitim réew ñëw tumuranke fii kooke waras na ko mën a jox ci zakat suñu borom yàlla ubbi ko muy juróom-ñetti bunt yoo xam ne dana ñii ñoo yeyo zakat su ko defee nga génne ko ña ca gën a yey mooy say jege ñaale ak say dëkkandoo yonent bi alayhi salatu wasalaam da daan wax zakat nañ koo jël fiñ koy jëlee delloo ko fañ koy fañ ko jëlee su ko defee kon dara du mën a tax ñu koy tuxal yóbbu feneen lu dul ñu yëg na ñooñu kat ñoo gën a ñàkk ñu ngi noonu zakat boobu mbokk julit kenn du ko jël di ci tabax ay jàkka wala kenn di ci jël di ci defar ay dispensaire ak yeneen ak yeneen bal bunt yi yàlla ubbi rek foofee lañ ko war a yemele suñu borom yàlla subhanahu wa taala daal di ñu ci wax xéewal yoo xam ne kenn mënu koo pekk bokk na ci xéewal yooyee mbokk julit ki nga xam ne dafa tàmm di gën a zakat yàlla day rocc ci moom ak nay ca nay mbokk da ngay gis ne ab nay ku sori nit ñi la ku sori yàlla la ku jege sawara la amma ab tab ku jege nit ñi la ku jege yàlla la ku jege àjjana la amma ki tàmm at mu nekk mu jël ci alalam ab lim joxe ko loolee da koy sawarloo même yeneen xew xew bu amee it loolee da koy tàmm mu jeex mbokk zakat boobee gis nañu day indi benn jàmmoo ci biir société bi mooy yow mi yàlla wërsëgal alal nga yëg ne man kat maa ngi ci biir mbooloo mi yàlla tànn ma jox ma loo xam ne samay aajo faj naa ko ba maa ngi denc ca ñii ngi di sama mbokk yi samay dëkkandoo ñoom day amuñu kon ma sant yàlla ni yàlla rafetale ci man ahsin kama ahsan allahu ilayk daal di jël def loole dellee ko ci ñoom waaye ña nga xamee ni it ñoo jàppale seen loxo jotul seen gannaaw ñii am xel mu dal ne ah yàlla day xañ na leen waaye boole na leen ak ay jaamam yoo xam ne nii am na lum leen jox ca it sant na leen ñu jël la jox la ci loolee mën a doon ab juboo ak mottalente ba ñi amul du ñu iñaane ñi am waxumaa nag di xalaat dem di leen agressé wala di jël seen alal société bu mel noonu la suñu borom yàlla di wax ne julit ñu góor ñi ak julit ñu jigéen ñi ku nekk day féetewoo sa moroom seen mandarga mooy dañuy taxawal julit dañuy joxe azaka di déglu lu baax di tere lu bon di topp yàlla ak yonent société bu mel nii yàlla mu ne sa yarhamuhumullah ñu mel nii fokk yàlla yërëm leen yàlla na yàlla boole ñu ca mbokk julit da ngay gis ne bokk na ci ngëneel yooyu ba tey mooy zakat boobee day doon lu lay fexeel yowmal qiyaama sunu yonente salallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñi mi bégal ne dañ leen keral ca ker ga muy génne nit ñi bu leen di atte ñay jël seen alal di ko joxe ci yàlla tax ñay jël seen alal di ko joxe ca di ko nëbb amul luñ ci sàkk lu dul ngërëmal yàlla loolu itamit yonente bi alayhi salaam bégal nu ci mbokk yonente bi alayhi salaam nee ne mi ngi ñuy bégal ni alal day du wàññi mukk lañ cay génne di ko joxe du ko wàññi mukk bal da koy ful moo tax suñu borom ni jëlal azaka tu tahiruhum mu laabal alal ji ful ko ca borom bi jox ñu ci misaal nee na kiy joxe alalam ci yàlla tax mi ngi mel ni ki demoon jël benn pepp dugub daal di koy ah ji ca àll ba mu génneel ko juróom ñaari gub gub bu ne téeméeri pepp nekk ca ca mooy dalalal sa xel ci ni li ngay jël sa alal di ko génne ci zakat bi day yokk valeur la fa des day barkeel la nga xam ne moo ca des gannaaw ba loolu itamit mbokk julit yonent bi salallahu alayhi wa sallam nii la ñu doon tëkkoo ci ne amul kenn koo xamee ni nii amul benn bis boo xam ne lu dul yàlla dana wàcce la nga xam ne ñaari malaaka kenn ki li muy wax ba baajante bi so ay yàlla sa jaam yi nga wërsëgal képp ku ci jël di joxe ca nga tax yàlla na ko remplacer lu gën loole keneen ki li muy wax ay yàlla sa jaam yi nga wërsëgal képp koo xam ne gis na fa sa ngërëm nekk ci defu ko yàlla na ko indil ay tolof tolof ci loole loolu moo tax ba mbokk jurit na sa xel dal heure booy génn zakat heure booy génn sarax xamal ne yaa ngi yokk sa bopp wallahi la yonente bi alayhi salaam wax du dañ xamal ne yaa ngi yokk sa bopp yaa ngi barkeelal sa bopp yaa ngi dàqal sa bopp ay tiis yaa ngi xotti ay ordonnance yu jëmoon ci yow yaa ngi xotti catastrophe yu jëmoon ci yow amma nag nay alal ji bañ koo gën a zakat wala defoo ko fa nga ko war a def yaa ngi indil sa bopp ay catastrophe ak i coono mbokk dana doon lu yéema lool mooy léeg-léeg nga dégg marché yu bëri tàkk na marché dëkk sangam marché dëkk sangam weddi wuñ ne yàlla dana nattu ay jaamam mais lu ci bëri ñàkk génne zakat moo tax loolu di leen dal lu ci bëri mooy jël zakat bi dem jàpp ay dajey diine nga rey ay nag daal di jox ay ñoo xam ne ay centaine de millions mi ngi seen compte nga jox leen zakat boobee te yeyewuñ ko lu ci bëri moo tax catastrophe di dal loolee nga xam ne mooy commerçant yooyee yàlla ñu ko wax mu leer ci alquran benn ay góor gu baax ngi nii daan bay toolam lum ci am génn zakat bi jox fuqaraaw yi yàlla wërsëgal ko mu bàyyi nag doom yu bon ñoom ñépp ñu lënkaloo ni li bàyyi daan def ak yàq la tey duñ génne benn zakat ban dogoo ci loolu guddi gën waroon a góob bi suñu borom yónni fa benn ngelaw mu ànd ak safara taal tool ba bam jeex tàkk loolu yàlla ñu koy nettali ci suratu nuun muy wane it ne kon képp kuy woote woo nga julit nga yàlla sant na nga génn zakat bi sant na nga dimbil ay jaamam nga daal di lànk da ngay gis ne dana la indil catastrophe yoo xam ne da nga ca ñàkk fukk yoon ak juróom la nga waroon a joxe mu xaar la ca àllaaxira bokkul ak wutal gi la yàlla wutal ci àdduna bi ay yéen boo ko julit lii nga xam ne moom mooy jaamu yàlla gu mag gii day mi ngi nii di zakat bépp jaam war a ñaan yàlla bokku ca ña koy def bépp jaam yàlla ni ngay ñaane yàlla yóbbu la makka nga ne amin war ngaa ñaan yàlla it yàlla boole la ci ñi nga xam ne dañuy génne zakat xamal ne génne zakat wala bu ca sa kattan yeeg bu leen ngay génne ay sarax loolee dana la fegal déegu ñaaw mbokk déegu ñaaw du ko camion dër def ko ay pièces waaye déegu ñaaw muy deeyaale bakkaar deeyaale mooy yàlla loolu mooy déegu ñaaw xamal na it dana fay mer mi la yàlla mere bari na bakkaar yu bari yoo xam ne def nga ko zakat ba nga génne ak sarax ba nga génne loolee day dana la feral merum yàlla subhanahu wa taala ca itamit mbokk jurit suñu borom yàlla subhanahu wa taala day nee na la in shakartum la azidannakum fii ak yéen a ngi may sant ma leen di dolli fii ak yéen a ngi may sant ma leen di dolli su ko defee ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi borom xéewal yi mboolem ñi nga xam ne xéewal na leen ci ñuy génn zakat boobu ci ñoom ak i sarax yal na yàlla subhanahu wa taala nangul leen yal na yàlla subhanahu wa taala laabal leen yal na yàlla subhanahu wa taala wuutal leen lu gën la nga xam ne moom lañ doon di joxe ñëpp ñoo xamee ni yàlla nattu na leen yal na yàlla may leen muñ gu rafet yal na yàlla xettili leen ca boole leen ca ña nga xam ne dañ leen di woomle ñiy génn zakat ci ñun ak nañ koy jox ñëpp yal na yàlla boole leen jéggalam ak yërmandeem ca bu def ñu société bi muy yërëm àdduna di leen yërëm alaxira allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين